teg mbir yi mooy mbër li nga wax Omar am solo waxkat yi dañuy wax di jëf rek. waaw na naanal boppam bisimilah rek naan yal na yàlla barkeel yal na bu ci xaas amee ndam du ndamu xaas de ndamu ku ku am yërmande ci àddina bi la ku am yërmande sa ndam la. kon nag ñaan yàlla ko mu am ci ndam. mu jeex jana tàkk ah. des na de. ma forcé mu jeex. a forcé ko man yóbbu. forcé rek fa mbay. forcé rek. bisimilah. jeexal foofu jàmm am ci ndam. am na bépp am ndam ku bëgg lu baax. am ñoo xam ne fu bi instant bii seen dafa gaaw a tooy. te li naan dund bu jeexagul lu leen na ci xaj. lii ko dal nii ñun ñii ñëpp kenn mu jógu ci ci kon nit nay am yërmande nit nay rafetal nit day gëm yàlla nit day sóoraale lu ne am yërmande yërmande lu baax la Cheikh Ibrahima Diop xaas na jël engagement boo xam ne que diis na mais nee na woon Cheikh lu ma la xas ba ne la lii moom mën naa ko kenn forcé ma ko maa ngi jël engagement te incha allah na ma ci am tey leen tàmbali tey leen tàmbali musu oh là là ndeysaan hmm? ndax bu nit yi di wax rek jëf moo ëpp solo wax jëf gis li war a ñu naan xaas xaas xaas tey moo nekk li war a àdduna bi di coow xaas nag moo nekk nii engagement la jël na tey ak faa bant loolu mu fay ah ah yàqu dara ñu koy muur ñu koy bismillah sangu nañ ko ba cetu tànk yi rek ak suuru suuru bi nag du neex nga dee laaj ñu ne gis nañ mi ngi doon côté bële. ah comme ñëw twin bi xam yaram dañu bëgg a jeex bu am yaram moo tax ma jël ko exemple boobu rek ah xaasa de eh. li muy ñaan.